mbokk amateur yi kii di la woo saa la woowee yóbbu la foo xamante ni nii da ngay gis sa cosaan Gaston Production mbokk yi la 4 février fan lañ jëm arène nationale lan moo fi xew ñaabu ndaw mooy daje kan Zarko ki fi ñëpp baax bu ñaabu ndaw ni mën naa ci dara mbokk yi le 4 février arène nationale Gaston Production makkat meeg ñi ñëw taxaw ànd ak Abdou Lahad waaye yemul foofu de xanaa yaa ngi fàttaliku 2006 CLAF kalaaf dellusiwaat na wax la kalaaf bi ñan la jàppal ma caatu yoof mooy bëri ak kan njaay tiin bawal war a feeñ mbokk yi làmba ñu noonu waaye bul fàtte ni caatu yoof kat ci victoire la jóge waaye duut saane ak kan njaga doole lamb jooju lambi doole la képp xel yaay daan booy jaxaaw ak gargëdd gargëdd dafa wàcc bëri xale yi tolloog ñoo maaseek ñoo boo yaraa kan lay bëree ñu ne gàmmu géy mbokk yi le 4 février arène nationale ah mbokk yi le 4 février mi ngi noonu nag mbokk yi sponsor yaa ngi xam ngeen ni bis bi bisu làmb rek la bis bi bisu culture la le 4 février bu ko kenn fàtte mbokk yi kaay lañu daw gaaw fan lan jëm arène nationale laa ilaaha illallaah attention ñaabu ndaw dem na jël ñaar fu ñuy mujj ñaabu ndaw laa ilaaha illallaah ñaabu ndaw xale baa ngi attention jën kere Zarko daje nañu ñoom ñaar laa ilaaha illallaah zartal na ko daan na ko jëli bi leer na ay te mbokk yi combat spécial baa ngi noonu trophée Modou Xarañ Lo waaye Go moo ko présenté le mouvement de clé mouvement bu bees bi ndax Go Faye ak Modou Xarañ Lo benn lañ Go Faye parcelle Modou Lo parcelle trophée ko présenté Yankaw la ak Bébé Gouy Gui arbitre bi la na mbokk yi Yankaw Junior moo ñuul nekk à gauche ma ngay ñaan Bébé Gouy Gui moo yor ngemb vax bu zone bi nekk école de lutte Fadam Yankaw Doudou Bakar Sarr ña ngay lewtoo combat bi bu yàggee rek metti waaye bu gaawee nga gis yell bu soof Bébé Gouy Gui Yankaw pied gauche pied gauche ana luy xew Yankaw ña leew too yank école de lutte Doudou Baka Sarr à gauche Bébé Gouy école de lutte Mor Fadam yankaw duggoon na daan Seex Kayma ca Géejawaay daanan na fa réparé ca caatu daaw defal daan ko fa Bébé Gouy Gui duggoon secteur am daan fa caatu montagne kon tay yomb attention yankaw Bébé Gouy Gui combat bi vigilant moo koy jeexal décision moo koy jeexal combat bu doy waar ngi ni taala kaay taala ñime nga ñu reporté combat bi taala bu jeex jaamu daa tiit taala daa tiit congu de gis naa ko fi songu songu baax na. yaakaar tegal na ko tànk bi tànk bi bëgguma ko de tànk bi. loolu baa wóor na. lii taala jegesil. donte day bëree tànk waaye bëgguma mu mu jox ko tànk bi ni mu ko tegalee tànk bi nii sur les yankaaw day bëree tànk nag mbëru ah. tànk la Bébé Gouy Gui yankaaw ya ngay lew too jàppante loxo yankaaw nem na attention kor na ko door door kor door Bébé Gouy Gui nag mbër muy fàq la de mbër muy fàq la nag yankaaw Bébé Gouy Gui Bébé Gouy Gui jàpp na am na ngemb de jàppante bi ma gis avantage yankaaw la ah Bébé Gouy Gui day fàq de avantage yankaaw yankaaw kor na door door door Bébé Gouy Gui yankaaw yankaaw a door ci suuf Yankawa ngi door wër na ngemb waaye Bébé Gouy Gui daa jàpp de da koo bëgg a faq arbitre atte na arbitre de am na lu xew de protestant la yàbbi wala ardo la ardo ardo ardo Bébé Gouy Gui na ardo Bébé Gouy Gui dem na ardo waaye loolu jeexalu ko de taala non non Yankaw bala mu ngaa daan il faut mu il faut mu xeex ak moom. mu wàññi ko il faut mu wàññi ko bu ñëwee bëre ak moom rek mën naa métti Yankaw nii mu def nii moo baax avantage Yankaw la fi ndool nii non Bébé Gouy Gui bu ñëwee day bëree xadar Yankaw man na kaa nax juum ko daan ko. mais yow da ngaa far rek waxi far rek. non non non mais dem ardo jeexalut lamb. jeexal na lamb ji fi ne Yankaw fi ne bu bu bu amee. dugg ci avantage waaw dafa dugg ci avantage am fi ne lii mu def nii tuuse ko yóbbu ko ardo bu ñëwaatee rek mën naa yàq lamb Bébé Gouy Gui mais bu Bébé Gouy Gui ñëwee fermi xeex bi fermi corps bi bëree ak moom nag. bu bëree moom moom yangaaw yangaaw tamit tëlewut bëree yangaaw man boo dee xool man avantage bi ma gis mooy yangaaw man bëree la bu ma koy néewoon tey laa bëree laa koy def loolu. ndax geesul sa droite gis nga paa weex be paa bee sol lu weex la mooy président école de lutte mooy président école de lutte Doudou Bakar Sarr gis nga ko noonu yankaw lay waxal. mooy Père Diakhaté président école de lutte Doudou Bakar Sarr mi ngi noonu taxaw waaye yóbbante galgal ubul lamb bébé guy gi ca ardo ba bébé guy gi ma nga ca ardo ba yankaw it ñëw na ardo de taalakaay yankaw mi ngi taxaw ci ardo bi de waaye non non yankaw xam naa dafa am ay leer rek guy gi moo jël ay coup bébé guy gi dafa jël coup ba ba ba sànni protège dent bi moom taala da ngaa far supporteru bébé guy gi laa war na andi fii def ko sama consultant bébé guy gi. ci bëre lay jeexe de lay jeexe ci bëre lay jeexe xeex ci bëre lay jeexe bébé guy gee ngi noonu ca ardo ba jógee gu fa. ña ngi faj. bébé guy gee ngi noonu. Omar ñu dem dellu siwaat. ay njaago or bi jóge na ci ardo bi ba dellu si arbi sif la waat na bébé guy gi day ñëw da ko ciy tegaat njaago la du ragal du ragal der na tànk yi cokkaas na ndax day songu jël tànk ba yaa ngi guy gi bébé guy gi jël tànk bi waaw gis naa ko de bébé guy gi jël tànk yankaw. waaw ci loolu nomb naa la. ay abu seefaa maa ngi soog a ñëw. <laughs> yankaw si ñoom bébé guy gi. waaw yankaw si ñoom bébé guy gi. yankaw moo féete à gauche. la yan. bébé guy gi moo féete à droite. à droite ndeysaan moom Lores ndaanaan la nag. Lores <laughs> waaw. waaw doomi kii waay la. Njaago la Njaago la. attention daje nañ mu corne d'or. waaw corne d'or. combat bi métti na de Moulanta du yomb eh, ko waaw jël na ko. jël na ko waaw de. yooru na yooru na bébé guy gi yan kaw bébé guy gi yan kaw xam nga bébé guy gi ngay fayu éperculier yi baaxul de mu anta éperculier kay baaxul éperculier day jeexal combat poson la baaxul poson la billaay wallaay Yankaw Junior bébé guy gi moo ñu woon ginnaaw keroog ba ko Baba Jaxal jëlee ci contre ma Ibou Ardo arbitre atte na mi-temps mi-temps nañu mi-temps wala ki Ardo encore ardo kii dal pokola la ilaha illallah oh Lores bi oh sama xarit bi baal xeex bi bi amateur bi guy mën naa bëre na bi bi amateur yi jar na waa bi amateur yi jar na <laughs> lamb amateur yi jar na waaw bu xeex am bëre am bëre neex jar na dëgg la moo doon bébé guy gi dellu na ca ardo ba ah kon bi mooy deuxième fois mu ci ardo bi. waaw deuxième fois waaw. ok kon na bàyyi xeeb te seet sa bëre ba. na bàyyi xeeb te seet sa bëre ba Omar ñu dellusiwaat. dellusiwaat na de. bébé guy gi dañ ñaw. dañ kole de. oh man nag doori metti bëgguma ko ci làmb. mais ñoom ñaar nañ seet sa bëre ay ay bërekat la ñu. waaw te bàyyi xeeb. mi ba tey jotagul de. ah ba léegi mi-temps guñu. ba tey mi-temps guñu combat bi daa teel a metti sant daa teel a métti yankaw nag bu taxawul. dina jël avertissement te bu ko jëlee lambam day yàqu. day yàqu parce que boobaa day décider bëre force. waaw. bébé guy gi yankaw. mun na bëri gis naa fi déclenché door ñu daw paquete la. waaw wax nga dëgg. xam naa daal mënut a yomb. tour na deretu njaago ba de. tour na njaago bi kay njaago yi mere nañ ko trop. a <laughs> ah, xeexu njaago du jeex moo tax gisoo Bébé Gouy Gui dem na ardo ñaari yoon mais nee na ko xeexu njaago du jeex. du <laughs> yankaw xaw ma dina jeexal tay xeexu njaago wala déet. ana Kéba bu yankaw foo féete. ana Paul bu Bébé Gouy Gui. Oh. ana Ama Sène Junior bu Bébé guy Gui. mu ngi jagat jagat rek sax ana laay bu Bébé Gouy Gui laay bu yankaw. ana sa xombal daw na jël na jël na. mu doon na kor na ko ci kaw. kor na ko ci kaw wéyale na ko mu bañ yaa ko kor na ko dóor. dóor na ko oh oh oh oh oh taf na ko. ma jaay doole. yaa ngi ko génnee sa combat yàqu de. bu génn bu génnee lambam yàqu de. na si biir bu duggaatu ci géew bi lambam yàqu. ci géew bi lambam yàqu de. mais combat de moo doon. torop bébé guy gi da koo génne. da koo bëgg a génne. ay gi ndaanaan la. yankaw mboot na ko mais yankaw mën na ko génne. yankaw expérience zéro bébé guy gi. yankaw day am avertissement gis nga. baaloom avertissement. day am avertissement bébé guy gi loolu la bëggoon. bébé guy gi loolu la bëggoon. gis nga am na benn avertissement. Oh. am na benn avertissement. am na ko taxawal. waaw mu koy taxawal. Yankaw expérience zéro bi mu andee Bébé Gouy Gui ba ci wetu saako da koo war na attaqué génn ko. yan ko benn avertissement. Bébé Gouy Gui moo ko ëpp expérience parce que dafa def rotation génn ko jox ko benn avertissement sóoraale bu temps bi jeexee mu am ndam. mooy am ndam. lamb abu expérience. expérience la. mi temps. mi temps nañu. bu nu dellu nag. du temps bi jeexee. demaan na day delluwaat delluwaat na ca ardo ba. na de Omar. delluwaat na ca ardo ba. oh na. koo métti ñu dem dellu ci Omar. mitaa nañ ba dellu si. mitaa nañ dellu si waat Modou Anta. cinq minutes moo des bu jeexee bébé guy gi mooy am ndam parce que bébé guy gi profé na ko ya profé yankaw ba génne ko yankaw am benn avertissement. dëgg la waaw. benn avertissement nag bu temps bi jeexee bébé guy gi mooy am ndam. mooy expérience la. waaw ah, dara du lamb. da ko expérience ci làmb la bokk. ci la bokk bébé fay indi expérience. parce que ñaar tamit seen doole sa rewut. wallaahi ndeysaan. waaw mun naa na ay juge am. arbitre siflé waat na. Yankaw day ñaw wala du ñëw. wàcc na ci tànk yi. day ñëw wala du ñëw bébé guy gee ngi déplacé wu. bébé guy gi door na. Yankaw méb na. combat bi jar na prix ah combat bi kay jar na bii laam bi amaat. ko bañ na bañ na. tabaxal na ko. Yankaw mi li muy def maa wóor na li muy maa wóor na. ma ca tal fa. attention guy gi bañ na. bañ na takk na ko. non mu naan war naa jeex. ah eh, guy gi ngay fayu. war naa jeex fii mu naan ah, de. Yankaw Bébé Gouy Gui waaye lamb xale bu ko mënee day day neex buy bëri <laughs> fa mu jàpp baaxut xale door na fa mu jàpp baaxut de door na ala si yéla jàpp ala si yéla jàpp da koy topp de bu fa xembaat dagg bu fa xee dagg topp ko door door oh. door door kurpañ rak rak rak na ko mu bañ Bébé Gouy Gui fayu na fayu na fayu na njaago baa ngay fayu yankaw caxabal na ko bañ na. waay waay moo doon doon. lamb ji neex na am. waaw lamb ji may lamb. weelal na ko fàq na ko na. <laughs> yankaw yi ngi yàkkamti bëre bi de. yankaw ah, waaw. li ma la sànq dina bëri suñu sago. laa ilaha illallah kor na ko dooraan na ko. na. génn dooraan na génn na boppam. arbitre du àtte deret amul. arbitre waa deret am na waa deret am na. Bébé Gouy Gui yàbbi na protestant ba arbitre bee juum. bu ko yàbbi. yankaw yankaw ma yàbbi. nee na ko dellu ca médecin ba. c'est tet tet tet tet tet. waaye bii combat waay. lamb ji metti na. lamb ji metti na metti na metti na metti na. mais xanaa bébé guy gi lu mu indi ci boolo. oh bébé guy gi dafa mobiliser. Oh. njaago yaa ngay woy. andi ma ruuma njaaku. laay xeexu njaago du jeex. ba njaago kay teer ba njaago kele kese. amul <laughs> li nga wax neex na. li nga waxee lan. waaye li li. ay la. woo am na këlëkës am na kayiteer. am ka jessa am ba cooloom. way ban kii njaago këlëkës mooy njaago bu sadik bi. këlëkës waaw mooy ma xeexam du jeex. xeexam du jeex. jërëjëf ñu dem dellu si. ñu dem dellu si. ardo bi moom Lores. ardo ba bari na. man njaago la génn sama deret taxul nga daan ma. yankaw da ko fay delloowaat. waaw wala déet. wax ñoom ñaar. yankaw benn avertissement. bébé guy gi zéro avertissement. te la walañ bum ca mbay mbay ga. ña ngay léewtoo tàllal na loxo ba ba mu jeex. xam nga léewtoo bu sax bii. waaw. <laughs> ay bërëkat lañu. instant yi Bébé Gouy Gui day parce que temps bi moo ci gën a am kii avantage. yaa ngi kaw wu na Bébé Gouy Gui tàllal loxo ba ñaareel rek. door na ko gauche droite. door na moytu. door door gauche droite. arbitre bi def na ko avertissement. te te te te guy gi na ko kaay bëre. mais mais war na ko jox verbal. parce que dafa dafa arrière. dana ko taxawal nga bëre. mais war na ko jox avertissement verbal. lamb ji mën naa dem poro de. déet déet. dugg na ci garde gi dóor. dóor. dóor. xeex. xeex. xeex. xeex. raak. mais yan ko dafa na rek oh waay yan ko bu rafet waay. raat kor na ko door na ko door na ko door na ko mais yan ko xeex bi mu xeex rafet na de. laay kor door bu génnee bu génnee mu jeex de yan kaw jege na saako yi bu génnee mu jeex. su génnee mu jeex. bu génnee mu jeex de bu dugut ci biir. bébé guy gi li muy ba euh, xeex bi xeex bi yan ko xeex rafet mu daan tax. bébé guy gi dina ko fàq de arbitre àtte na. dara day dellu. oh waaw lamb ji métti na waay na métti na métti na métti na métti na métti na. ko xeeb oh, na métti na métti na yi muy dugal abu ah, na kaay ma wax la. Uh-huh. sérieusement. Uh-huh. wallahi bëgguma bëgguma deret ju bëri a arrêté combat parce que tamit dañu war a arrêté combat bi. parce que combat moo tax. buñ sacrifié wu booy bi. dëgg la nga. dëgg li ma naqari neexuma ma la moo tax kii supporter yi mu andi ngorom mayu ko mu taxaw jàkkaarloog arbitre bi ne ko mënatuma arbitre yi ñooy am compréhension daga guy boo ko doon dóor ba ray ko danaa lay mën naa bëre waaye ah. mooy bii bébé guy gi jël bii bébé guy gi jël boobu du yoon ah. ba pare arrêté mbistine dafa bari bu fekkee bébé guy gi mënta bëre deret ji dafay circuler dañoo war a arrêté combat bi jox Yankaw victoire mais du arrêté dagg combat ñu ci adresse di bari da koy arrêté xam ne lii mënut a continuer. war na mën a am. ndax décision ci lamb la bokk. parce que xale bi yaakaaru lamb waaw bu yàggee dañ koy euh, déet ñu mu sotte ko baaxutul. waaw mën na ko indil après ay yeneen infraction ci ci kanam. non mën na nekk. nañ arrêté combat bi. parce que boobu dina arrêté plus de quatre ma seen. mais am boo xam te ne nag ci bébé guy. du yoon du yoon dañ ko war a jox avertissement mais Abou mais combat bee toll noonu nag. amateurs yi ak supporters yi seen bi bi daa am ci ku suñu loo jógee lii rek doy na grand combat bu. maam Diarra ngay jooy. ndeysaan moo rafet xool ko. mënut koo xool. ma ngay jooy ndeysaan ba muy yaa ngi jooyloo journaliste yi. wax na dëgg dafa métti waaw. dërëjëf coon sekk di wax. dëgg la dina mbër luñ ko fay jar na ko. waaw dërëjëf ba na mbër yi fayu lu ñu jënd reer lii dafa métti. xoolal lii deret ji di cax-caxi. ay ay gars yi di jooy naaj. ba nit ñi di jooy ngay. ah mais tamit ah abu métti na. abu dafa métti. métti na dafa métti abu. te saa bu ñëwee nag jeexaat la fa ko déggoon fa la koy dolliwaat fa góom ba nekk. c'est que nag yan kaw nag ci xale yi ñu jur ci lamb ci la bokk de. non day daanaan ab. ay jafe-jafe moo ko dal ci kalaaf bi. daanaan la daan ko. ba ba pare xoolal ay ay ay ay moom ñi ñi ma mën ci lamb ñoo ko daan ci lamb. waaw ñi nga xamante ne léeg-léeg yan kaw ma la mën tey ñooñu ñoo ko ñëw daan ci lamb. daanaan la de gënoon nax dafa yeewu xam nga li may fàttali retour Tapha Tine diggante ak Elton keroog. waaw takkusaan boobu. dërët ba bëri na dërët ba bëri na booba. abu dërët ba bëri na booba takkusaan ay booba takkusaan abu. dërët ba bëri na booba. ay booba takkusaan abu. dërët ba bëri na. waaw booy li ñu mën a door de. ah waaw yow indo bi muy door. gartombe ah, la ñuy def gartombe. loolu ku yàgg dem bawal xam nga gartombe. xeex bi muy xeex dafa rafet. loolu xale yi boo amee fukki at ak boo amee juróomi at ak juróom-benni at ci la say moroom di wërale. fa la fa la xamee dafa mën a xeex. waaw fu ma gisee ñaari pied euh, loxo yi gauche droite yi dañoo dugg a jeex te dafa am sens dana pas dugalaat gauche bi pas. boo xoolee Bébé Gouy Gui bëre lay cherché te ndaanaanu bërekat la. te et puis bëre bi muy ëpp ko waaw moo tax combat bi compliqué. combat bu metti la. te yaa ngi ko ëppul doole Bébé Gouy Gui. déedéet Bébé Gouy Gui mi day daan. onze contre onze ay xale yee mën a bëre waay. <laughs> kenn wane fi yaa fuus de mbaa nga wane fi yëfi cuune. yëfi dëmm la ñuy def fi ah. nee naa ko combat bi mooy yoon. mooy yoon wala am am am na bu ko amul bu ko dàq. xeex bu métti bi fi am nii. Ah. Eh, amul bu ko combat fi am am na xeex mais après jël jël ba ci am day soof. waaw mais xoolal ñaari xale yi. yan ko dafa jàpp saa yu saa yu bari naa ko. daw bu ko fax daw wi ko. waaw nañu ah, yàlla ñu niil sax. yàlla ñu niil. par benn yoon. mam jaara ngay jooy. jooy ya métti Touré Kewra ak jël na Mame Diarra ba ngay jooy. jooyam métti na de ga métti na de sax. jooyam ma nga jooy ma ngay jooy. moytul ma nii. jooyam métti na Mame Diarra ngay jooy ndeysaan. jooyam métti na jooyam métti na waaw ma ngay jooy xëy na xëy xeex bi xeex bi la xëy xeex bi la. oh. waaw day yóbbu si na nax ko day Seydina di ko nax. waaw ah, dafa métti nag traite kee bari. waaw trophée Modou xarañ loo mënta yomb nag Modou Lo miñ ko eh, tuddee tax ko waay waay li yoo tax maa yëg lu mel nii <laughs> trophée Modou Lo la mënta yomb mënta yomb Modou Lo loo ko tuddee du yomb yaa ngi gis xeex di xeex indee bi xeex guy gi daw na jël na ko yaa ngi guy gi yaa loxo bi ndeysaan loolooy doole. waaw doole dëgg la jàpp na mu bës. na ko bàyyil gor na ko door na ko. door na ko ay yaa ay yaa. épercule Tapha Tine yi mu doon dóor Elton laa nii tey. <laughs> and nga ne lan. épercule yi Tapha Tine doon dóor Elton laa gis. xar na ko bañ na. épercule <laughs> yi Tapha Tine ya. nii tey. eh taf na ko bañ na. moom laa gis nii tey. combat bi mënut a yomb tey. mënut a yomb. combat bi man damay ñaan ñu machine ah waaye amiin waaye. parce que métti na quoi. métti na torop. te ñoom ñaar ñëpp mérité nañu victoire. waaw ñoom ñaar ñëpp mérité nañ félicitation. dëgg la. ah bébé guy gi ndengeñ na ko caxabal dina am de. yaa ngi kaw bébé guy gi. combat bi métti euh, euh, euh, ko de. ah kuy siggi ba bi ko xalam. abi dañuy àtte. baax na de. fa mu baax na kay. xaw ma lu muy ana luy am. waaw ah, temps du jeex. bu temps bi jeexee dañuy mi temps door na. guy gi dugal na bopp loolu wóorut. na koo takk. loxo bi. na. wóorut. bébé foofu wóorut. jaxabal na ko bañ na. yaa ngi ko bébé xool. dooraan na. bébé guy gi yaa Bébé Gouy Gui door na Yankaw ngi door ay ya ya oh oh oh na ko bañ ay la ay la la oh arbitre atte na na ah arbitre atte na na waaye jël am na Yankaw la jóg xamul lu xew arbitre dafa atte temps bee jeex ardo ko yóbbu. ardo bi kat coow dina am de. coow dina am. non jël amul de. jël de. arbitre a pare. Ah, waaw du fa daa sifflé ba pare.

acca dellu si waat nañ yankaw ak bébé guy gi sànq bébé guy gi ay bi daal sifle mu continuer action bi daan daan yankaw yankaw moom pare woon ci làmb ji dèjà moom tëdd na yaakaar na làmb <laughs> làmb ji jeex na coono baaxut coono baaxut arbitre bi woowaat na leen dañuy bëre combat bi moom xam naa ne boo sàgganul match nii lay mujje parce que instant yi moom metti na ci ñoom torop lan moo réer waa ndeysaan ko bi oh waaye taf bari oh ay <laughs> ah, waay protestant bi tamit mën nañ ko see disqualifié de xam nga loolu mën nañ ko see disqualifié de allo. abu ñaari mbëri dellu si waat nan Bébé Gouy Gui ak Yankaw trois minutes moo yaa ngi waxtaan seen biir de ñu ngi waxtaan Babacar a ngi wax ak moom de lan la koy wax lan la Babacar wax naa ak moom protestant ok arbitre laaj na ay juge am ndax pare nee na ko waaw sifflé na arbitre sifflé waat na Modou Anta lamb ji metti na torop yankaw ak yama ma bébé guy gi bébé guy gi la di si si ay bare tuddee waaw bu ñetti minutes ca yem wala ñaari minutes sax prolongation la ñuy dem dëgg la mel ni beneen beneen beneen cinq minutes bi jeexagul te wala waaw jeexagul jeexagul bu jeexee 3 minutes la ñu dem. jeexagut. yaa ngi ko attaqué na. Bébé Gouy ko. baa du jeex attention takk na ko bal na ko bal na ko. xëj na ko plaqué na ko bañ na. <laughs> ñu ngi bëre de. Anta waaw. billahi wala mbër bu mu nee bëree xelam day dal. maa ko wax door na. door na mais yankaw na yankaw lu muy def lan la. bu continuer xeex bu sàgganee dina daanu de. booy da koo bal de bal ba ko bal baax na de. plaqué ko xar na ko bañ na. yankaw Bébé Gouy Gui. jeexagul lii de mooy lii de mooy bu fi yemoon sax mu neex. wallaay kay moom instant yi <laughs> damaa bëgg ñu niil. billaay wallaay damaa bëgg ñu niil kenn yu dem sa kon yóbbaale fa defet dëgg la ay jàmbaar lañu. balaa kenn ko bañ na. bébé guy na moytu saako yi. yaa ngi ko yóbbu ca saako na mu bañ. <laughs> balaa kenn ko mu bañ. mu ngi koy jéem a yéeg. yaa ngi ko ngi bëre ko da koo attention jeexagul jeexagul da koo bëgg a génn kotti na ko eh, eh. Yankaw day ñàkk de Yankaw bu jëlee avertissement day ñàkk wala demaat na ca ardo ba dellu na ca ardo ba Bébé Gouy Gui dellu na ca ardo ba la ilaha illallah seet tat tat tat tat tat yi dem na Ardo. mais ñu ngi arrêté combat bi tamit. Oh, lamb ji mett na. Yankaw daa sonn. Bébé Gouy Gui toog na. ah lii du yoon xam nga lan la makan buñ sacrifié carrière xale yi. billaah xoolal kii xale yi. lamb ji nañ ko tas daf ko match nul. match nul waaw ku suwat bu fekkee ne Bébé Gouy Gui arrêt de médecin la ñu jox ko defet wala ñu tas lamb ji daf ko match nul lii dafa metti bu leen sacrifié wu xale bi ñu koy ñaw lii du yoon kii dafa am ay combat yu des ci kanamam géejawaay yaakaar ko mu nekk yaakaaru làmb bu koy jël làmb ji di jeex goo mu jox ko de du ko jox du ko jox parce que bëri la woon dañoo bëre du ko jox du ko jox coach nee naa du ko jox. lamb ji yàlla niil. lamb ji yàlla na niil. jërëjëf muy dem prolongation de. yàlla na niil lii daa war a niil. <laughs> amu kenn méritowul dem ko ñoom yóbbaale defet. dëgg la. góob bu ma doon ñooma nag dañuy dawal compréhension en tant que ay frère. waaw waaw ñu négocier niil. nii mu jeex. parce lii foom gar mi la dëgg la te nañu niil. te ñoom suba suba gars yi tëggaale xoolal ay der lan parce que ay xarit la ñuy nekk après dëgg la parce que dañoo jëflante combat bu gën a kon wane wut yaafus kenn wane wut affaire jom dëgg la lii mooy lamb waay mais nag drapeau roi la mënul yomb mi ngi may fàttali combat mag ama daa métti woon lool te sa sa bu arbitre prix yaa ngi guy waaw arbitre bàyyi leen bu leen bëre léew too a am na mbégteel de am na ku ci am na ku ci <laughs> yaakaar na lim yaakaar na amul. waaw lam yaakaar am na ku yaakaaram tas. koo yaakaar. <laughs> am na ku yaakaaram tas si combat bi. loo xalaat. parce que Yankaw. waaw. foo gaay foo yow nekkutul foofu. waaw waaw. Bébé Gouy Gui. waaw lañ yaakaar ci moom mu ngi ci moom. waaw daañu fekk te lu wow koŋŋ. waaw waaw loolu tey parce que dañu ko xawoon jox favori bi yëpp. ok da nga yaakaar ne gars yi dañ ne woon. waaw fu ko Bébé Gouy Gui jàpp mu jeex. day jeex. Yankaw ñëw andi lu oos ci diggante bi bi. cey Abou parce que moo la am na yaakaar bu tas. <laughs> man lamb day fële day day gaaw mu yéex ci yow. waaw kuy entraîner entraîner ñaar yëpp mi tax nañu mi tax nañ mais am 3 minutes. wala ñoo tolloo avertissement de. waaw nul match nul match nul match nul Yankaw Bébé Gouy Gui match nul. match nul jeex na jeex na jeex na par avertissement meilleur combat de l'année kay kay kay kay Yankaw toog na kay kay Bébé Gouy Gui kay dañ kay kay kay nee na dañ ko war a jox avertissement kay bañ na de parce que Yankaw bi mu génnee nag ci règlement CNG dañu war a jox Yankaw avertissement parce que dañoo bëre ban ñëw ci saaku yi Bébé Gouy Gui génne yankaw Bébé Gouy Gui kaay jeex na Omar jërëjëf mbokk amateur yi kii di la woo saa wu la woowee yóbbu la foo xamante ni nii da ngay gis sa cosaan Gaston Production mbokk yi le 4 février fan lañ jëm arène nationale lan moo fi xew ñaabu ndaw mooy daje kan Zarko ki fi ñëpp baax bu ñaabu ndaw ni mën naa ci dara mbokk yi le 4 février arène nationale Gaston production makkat meeg ñi ñëw taxaw ànd ak Abdoulaye. laa ilaaha illallah Zarko. attention ñaabu ndaw dem na jël ñaar fu ñuy mujj ñaabu ndaw laa ilaaha illallah. ñaabu ndaw xale baa ngi. attention jën kere Zarko daje nañu ñoom ñaar. laa ilaaha illallah Zarko na ko daan na ko. jëli bi leer na.